ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf courant bu seer bi lakkee ak ni mu lakkalee askan wi ba tax ñu bari ci ñoom tëgg seen gémmiñ di jooy moom la l'observateur xëyee ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne ak neexoo amatul ci diggante askan wi ak këru courant bii di Senelec facture yu seer ñoo fa jaar courant bi seer ci ñoom bu bëgg leen yóbbu sil xafaar am na ñenn ñu ci xëy di wax wala mille am keneen ku ne moom daan fay mille keroog ñu indil ko mille keneen ku ne moom courant daawul weesu mille keroog fayloo nañu ko mille te moom compteur woyofal la yor l'observateur gisee na it ak keneen ku ko xamal ne moom courant ci mille ca la tolloon keroog dem na ba fay cent quarante-sept mille Pape mi jiite Senelec mi ngi indi ay leeral ci l'observateur ci courant bu seer bi ñuy wax ci réew mi Pape Demba Bitèye nee na muy ci compteur woyofal yi di ci compteur amatu Ba ci campagne électorale bi ñu jëm ndax li leer ba leer moo di ñi bëgg doon président fu ñu dem di fa campagne njëgu dund gu seer gi lañ fay nekk Sénégal journal Tribune nee nañu mooy réew moo xam ne commerçant yi dañuy def lu leen neex di yokku njëg yi nu mu leen neexee état bi toog di leen seetaan askan wi nekk ci jaaxle jommi tumuranke tuskare li tuskare dëgg mooy école bu Sénégal bi direct ñu bind neen école bu Sénégal ci ba jaaxle la toog réew mi manqué na lu ëpp fanweeri junniy jàngalekat ak juróom bari na ci réew mi yoo xam ne amutum ndox amul courant ci Ziguinchor moom am na fa lu mat juróom fukki école ak ñaar yu yàqu yaxeet ndax manifestation yi fi jaaroon ñoo ngi ci réew mi ak juróomi junni abri provisoire yu ñu war a yi di SAES e ñoom tàmbali ubbi bi ndax nee nañu ay accord yu mu jëloon te defu ko bu ñu deful ndànk point actu nee nañu dinañu gis ci réew mi année scolaire bu ñu mësut gis fukki mesure ak juróom-ñett yu ne woon moom la ñuy jël ngir rentrée scolaire bi jaar ci yoon yéenekaay bi nee nañu amu ca benn bu régler problème bi leneen lu point actu gis ci école Sénégal moo di bi waa Pastef jooxee ci l'école bi jàngalekat yépp saf sàpp ci politique dugg ci ba ci bopp ak baat politique bi ne lëjj ci école bi ubbite école bi mbir meneen mu ko xajamal Le Quotidien nee nañu mooy grève bu yàgg bi travailleurs collectivités territoriales yi di def ñàkk mën a am ay extrait de naissance ci état civil yi moo tax jafe-jafe am ci inscription yi ak ci orientation yi mu di situation boobu ki jiite UNAPES mi ngi ñuy xamal ci journal bi ne metti na lool ci xale yi li ci xët mu njëkku la Sénégal metti na lool inondation yéenekaay mi ñuy wax ne lom des affaires bii di Mohamed Nazir Seck moo fas yéene génne ci poosu boppam lu toll ci ñeenti téeméeri millions 400 millions ngir tabax ab hôpital ci Medina Baye ga ca Kaolack may ko askan wi yéenekaay bi nañu keroog bu président Macky Sall demee ci Medina Baye doon ziyaara ji xalifa bi gisee na fa ak Mohamed Nazir Seck ba mu wan ko projet bi ci waxtaan yu mu def ak waa IGFM la yéenekaay ne nañu xam ne na fa ne financement bi tabax hôpital bu Medina Baye bi financement bi jàppandi na te bu ñu tàmbalee liggéey bi gën ko yàgg fukki weer ak lay jël hôpital ba sotti lu sotti am borom candidat yu bari ñuy dégg ci élection présidentielle yi bés le nañu tàmbali naa coûter seen réew mi ndax fils parrainage yi ñuy defar di leen ko jox ak clé USB yi ñu cey boole la ñu def ci xaalis jege na 100 li ñu joxee gum ci ay fils parrainage yéen bi nee nañu mat na ñaari téeméeri fils parrainage ngir candidat yi candidat yi bëgg bokk ci élection présidentielle yi yi l'observateur nee nañu nañu ci sóor Habib Sy Habib Sy président bu parti de l'espoir et de la modernité Habib Sy président conférence téeméeri nit sursoi nee nañu ñoo wàcc keroog talaata ca îles Canaries mu di guléet nag lim bu ñu toll ciw nit di wàccee ci genn gaal ci Espagne ñaari téeméeri góor ak juróom-benn fukk ak ñett fukki mineur ak ñaari jigéen sursoi nee na ñoo wàccee ca gaal ga libération mel ne ku naan ko plus garaaw ci diiru fukki fan juróom-ñeenti gaali loo co déparé nañu Sénégal terre Espagne wàccee nañu fa 1295 immigrés ci ñoom fanweeri jigéen ak ñaar ñoo nga ca ñaar fukki mineur ak ñaar yoon wu ñuy jël ngir dem bitim réew l'observateur njaay bi Thierno Ndiaye Mansour Wade Demba Ndoye ak Ndiaga Diop ay taximan lañu journal bi nee nañu dañoo jaay seeni taxi dajale fanweeri million ak juróom-ñaar jox ko benn waay bu ñu naan Mohamed Badiane bu leen gëm woon ne da leen di jaaleele Nicaragua yóbbu leen Amérique gaañ yëkkati seen fanweeri million ak juróom-ñaar jox ko mu seey démb journal bi nee nañu ca lañ ko doon àtte ci tribunal bu Ndakaaru abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te